Koutiang. maire bi maire bi di waaj wax ni suñu mbokk benn benn waay la. yaa ngi ci xalaas express wala ngaa yéeg. fi non pare naa danaa yéeg def naa transition waaw. su ma nee Aba wala ma ne Ndiaye rek. Mhm. xamoon ni jéggi naa. waaw pare yenn saa yi xam nga man damay absenté. ah fekk maa ngi fii toog fekk ne nekkuma fi. dégg nga. Mhm. maire bi tamit dafa soxla ñu dimbali benn doomam. yaa ngi fàttaliku événement yi amoon stade bu Mbour euh, ci maanaam ñi ñu dese doon ci stade kii bi. stade stade Demba bi mooy. ci waa Mbour yi ci diggante US Wakam ak stade de Mbour. merci mhm. dafa benn doom bu ci bokkoon mais dafa am ñaari doom mais benn doom bi moo nekkoon soutien de famille am. Mhm. moo ko doon dimbali. ci lu nekk kooku génn àdduna ci événement yooyu léegi beneen doom bi jël relève bi dem ba benn moment benn guddi rek booy bi jékki-jékki rek yuuxu gars yi génn xool xool xool booy bi ne tekk waxatul. ñu yóbbu hôpital ñu xool gisuñu dara bu fii may wax yow nii booy bi day toog un mois du lekk un mois booy bi da koy du lekk booy bi du wax du def dara te moom moo doon dimbale mère bi ba kay génne àdduna moom moo jël relève bi. mais est-ce que essayé nañu dem xool nga xam ne ñoom ñooy ay. moom maa mën ñu xool lan moo ko dara wala yooyu. moo ko tax ñëw fii nag. parce que kenn xamul la moo ko dal hôpital xool nañu gisuñu dara. Hmm? waaw. dafa yuuxu. waaw ñëpp ñëwee. ci guddi gi. waaw wala ñu déglu ko mu wax. dañ ko bàyyi mu wax déglu. dañu laa gudd yoo xam ni. sama borom kër wàññeeku bàyyi maa njaboot gu sew su ma yoroon nii mu di ma dimbali jékki-jékki xel mi dem ooma ndey ooma bàyyi waaye ku ma dimbali te tax mm. bi rek laa so ma dem nen ma gisuñu dara léegi nag may ñaan ci ku ma dimbali te yàlla tax dama duggee ci garabi olof mm. loo ma dimbalee baax na ma dugg ci garab olof ndax jeexalu naa ma ni moom feebaru xel la amee waaw dafa jékki-jékki rek daal xel mi dem jaxasoo complètement day toog benn place liggéeyatul toog benn place jàpp njàmburam hmm. dem naa fan dem naa dalal xel rajo yëpp def naa ko analyse bi yëpp léegi nag ma bëgg a seet rëy ba xam parce que sonn naa nan la ko diggee moom daal dafa jékki-jékki rek affaire bi attaqué ko benn xaaju guddi wuyu ko ñun ñëpp ñu daje ceet bi lu nañu def ko ñu bu ko dala xel ñu déposé après yooyu ne ma kii du man fa man fexeen laa bëgg xal parce que moom musuma naatable sax na ci affaire xale yi parce que damay dikkul mais dama doon hésité ba xam ne xam nga xale yi mën nañu man da doon dugal leen ci dara wala déet mais biñ ko dëppee rajo bi ñu ma kii du affaire dox dafa am soog ci boppam loolu daal lañ ma wax même fan loolu la ñu génne ba am soog ci bopp bi gis ñu benn jàngoro ci moom kon xoolal beneen point mais soog bi waxuñu la la bi wala lu ko waral déedéet waxuñu ma dara am benn sëriñ ma demuma 2000 francs jëndal crédit ko seet dañ fa ne dañ ko laal lañ la ma wax loolu la ma dañ ko laaj ci liggéeyam am nañu it ay affaire olof ndax ay lébu lañu instant bi may wax yow nii sa doom ji nan lay dund lu muy dund fi ne nii xanaa toog jàpp ñi amuram toog rek dina mu benn place liggéeyatul ma seen ba angi mi teg yëpp angi mi teg dina mu mën naa toog un mois du lekk un mois du lekk du lekk bu ma yekkee añ bi ci kër gi ci bëgg dara xale yi kenn du bëgg dara ndax moom te muy doom boo xam ne daf maa tenir ma bu doon bandi du ma ci lenn ci àddina ndax ko ma fay mais day doom bu ma yërëm lii mooy problème nga ne mën na toog un mois du lekk mën naa toog deux mois du lekk mais à part loolu